باسم الإله يملها بلا ملاء ولا انتهاء حمدا لرب خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء له سكوري بلا كفاري وهو نسيري من فدائي لا سكوري بلا كفاري وهو نذيري من فدائي عبادي داي لك رداي لك ذناي لك الرداي ما تداي يا من رماني يا من رماني أما الجواني ستور أسله أمري كثر الغيار بلا كدائي يا من أجاب من استجاب بلي جاب في ذا النداء يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والد ذوي الهاء يا ذا الود يا ذا الوجود كلي بجود بلا ارتهاء زمن صالي بلا قفالي لي جد بسول جمع ردائي هب للتلاوة مع الحلاوة هب للتلاية لدى اللدائي أصلح تعالي بلا ارتحال بإديالي بلا بكاء يقبل مذابي وعم جلابي وسما بجميع زكاي إن الغرورا ومغرورا ولا يمني كما لا عملت على أنصرك شئت دايا قلت دايا لي بردايا دون ثكائي يا خير مغن أغنى بمن علي أسني بلا خلائي لك سكوري عند دياري يا ذا القشور بلا جلائي يا من كساني يا من من سقاني يا من حماني أن الخلائي أنت مرادي أنت عمادي نور فؤادي يا سديائي يا سدائبي يا سدائبي دار نجيبي أزيائي علي تسيري طيب تميري كني بخيرك للقيائي يا خير موي كني برعي وخير شعيك الأزكيائي هب الاستقامة إن الملامة أبل الكرامة بذل رائي بذل الجمال بذل الكمال بذل المال بذل الدوائي بسل عبادة بسل إفادة بقر قيادة للأولياء بسل والي ليس القتال asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziara bu baax di leen ziar bu baax a baax ci bis bu mag bi nga xamante ni ci la ñu nekk tey muy ziar boo xamante ni daayira ñu ànd ko ak daayira jaalibatul maraaxib bi nga xamante ne moo nekk université Cheikh Anta Diop ñu ngi ànd ak uh, jëwriñ Serigne Cheikh Anta Diop ak uh, mi nga xamante ne mooy jëwriñ liggéey bi ak Serigne Mor mi nga xamante ni moom moo yor culturel liggéey bi am naa kon dañuy jox Serigne Cheikh Anta Diop rek bu ko defee mu tàmbali bu ñu noppee ñu jox Serigne mi nga xamante ne mooy yor culturel mu am ay kàddu ci sañ kon jëwriñ bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah auzu billah bisimilah inna waliyallah jërëjëfati borom Touba jaara maam Cheikh Ibra Fall ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa Bachir suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér di ko ñaan su Cheikh Jëmm Fall ba naal yi xam ko liggéeyal borom tubaa ñu amee ci lu ko seen jort kon ni ko sëñ Moussa waxee rek mel ni bis bii tey bisu bu ñu bu ñu bu ñu fonk la mooy bisu ziara bu jaalibatu maraaxib tubaa Icad nga xam ne comme niñ koy niñ ko gisee ñun ñëpp ci logo yi xam ne mooy suñu credo euh, mooy service Serigne Touba à travers les ndongo kon ziar bi mooy li nga xam ne nii mooy fondement daara jaalibatu maraaxib kon mu mel ni mbokk taay fonk nañ ko lool ndax ku ci am na ñoo xamante ni fu ne lañ jógee boo seetee daara ji léegi ñaari cellule la am na cellule interne am na cellule externe waaye waa cellule externe sax def nañ def nañ teew te it fu fu lañ jógee kon loole day wane importance ziar bi nii daara ji am na ko kon nuy ñaan yàlla eh, eh, eggale ko ci bis ci ci alhamdulilahi rabbil alamin kon damay bàyyi kàddu gi sëñ eh, Mor Thiam mi nga xam ne moo nekk culturel bu defee mu gën a indi leeral ci wàllu culturel bi aouzu billah bismillah inna waliyallah aw na ko amee bi kastainu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ni ko secretaire général waxee sëriñ Moustapha Fall ak suñu jëwriñ Cheikh Anta Diop ku ne xam na ni daayira Jaalibatul Maraqib at bu nekk dañoo baaxoo ànd ak sëriñ Hamzatu Mbàkke ci dongoom yi waaye mel nag ren li ko sëriñ Cheikh Anta waxee diyaar bi dafa dafa dafa dafa dafa féete kaw dafa kawe njot ndax ren moom sëriñ daf ñoo yaatal ji boppam bu baax fas yéene ànd ak ndog ndongo yi dem da ca daara ja ànd ak ñoom waajal leen ay xéewal yendoo ak ñoom ba ngoon jot sëriñ bi dalal ñu daal di ñuy ñaanal ñu daal di dellu ci mbokk yi su ko defee nag dañoo ñu ngi agsi ci béréb bi nga xam ne moo di Touba muy béréb boo xam ni kenn umpalewul euh, kenn umpalewum maanaam ni nga xam ne coon ci sëriñ bi daj ba mun koo taxawal ak euh, keroog bi nga xam ne mi ngi toog fii euh, ci ci suñu càmmoñ mu jumaay Touba wala ci ginnaawam ci mooy kër sëriñ Saliou tey toogoon fa ci ca ca doon ñaan ñaanam gu ñaanam gu rëy jooju nga xam ne moo di matlabul fawzeni wa maskani sall minal fudaari wan ma ahli ma in jaari ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën naa yaatu ci xas dëggal lool nga xam ne kon ñu ngi ci bàkk bo ñu ngi ci boo xamante ne si pàkk bu suñ borom subhana taala barkeel la pàkk boo boo xamante ni bu suñ bu suñ borom subhana wa di nangu ab ñaanam la kon daal Serigne Cheikh Anta euh, ni ñu ko daan defee rek di ñaan suñu borom subhana wa taala boole ñoo dajalee euh, ngërëmal Serigne bi te li ñuy dàkk ci mbëggub Serigne Cheikh Amsatou jaaree ko ci dongo yi suñ borom subhana taala nangul ñu ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba xam ko ba noppi di ko xamle kon ñooñu gannaaw ba euh, suñ borom may ñu mën a jàngal alxuraan ak donte am lu ñu ci xam kon di jàppale nitu daara yi moom ak di leen taxawu ci dongo yi loolu dàpp naa ni farata la ci bépp jullit kon loolu moo doon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. wax na ñu jàllal rek ba feneen incha allah ñu ànd ak yéen fas yéene ànd ak yéen topp lépp lu joo xamante ni rek dina rotee ci ziar bi incha allah المعالي بس الدوائي بس العبادة بس الإفادة بقرن قيادة للأولياء بس النوالي ليس القتال مرد رجال على الثراء بس صعابة فبالإجابة جعل الكعبة فديائي بس الغراب جعل الكرابي نمر الأريب مع الرياء ذاك المنير ذاك البشير لا أثير بذا صنعائي لا عذابي بلا عذابي ولا عذابي ولا لعي غير البرايا يا سلمسا يا سلطا يا سبي بنائي أنت سروري بلا قراري شفي براري نوي الفناء فيك أقول ولا أقول فيك أول بلا فلاء هني جزاك رب نداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير ربي غير معبي بالارتزاء إني القديم وإذ قيم والعريم سلتزائي وأنت مجيري من الغرور ومن قرور داء سقاء زلت مكاني ست ماني هبني سماني بزي البقاء أنت سلوكي إلى الملك ما في النفوك موت اللقاء السبيل بك الوصول لمن ينيل خير سرائي أذهبت وري أذهبت خيري كملت رأيك الكبرائي خير الأنعام فيك خلامي بلا ملام بل بردائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيله أنت الوسيل نسي الغداء فيك جفاري المدين بلا فتون ولا الخداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أصنع رجائي أذهب همي موت ظلمي للجد بعلم داء نجائي أذهبت فقري لسلت سري غير مكر ولا إجاء زكيت نفسي فكبت عبدي أطربت لفي ذو التغتائي زنت جواتي ست عبادي أبقيت ذاتي مع الغتاء لك رجوعي مع جموعي بغير جوع ولا غتاء لك التباتي يا سلسلاتي بعد صلاتي مع سمائي عنك رديت بك نزيت كما غنيت عن الأناء لك ابتدائي يا سلامي يا سلف الله يا ذا الخناء لك بداي يا سلالاي يا سلف الله يا ذا الخناء فيك أنادي كل البلاد رسل عبادي بان الخماء فيك موت ما قد جنيت فيك ابتغيت غير الماء فيك سعابي فيك إيابي بالاغتراب لك انتمائي سنسة أبي التجنابي إلا كابي ولا هبائي يا خير ما عما جناهي مع المساء وقت السباء أرنبي بي يا من بي بلا يا بي ولا زبائي يا خير رأي يا خير رأي yaa xayra daayi lil samaayi salla alayka bi man ladayka musinnin alayka inda rimaayi عليك سلم ضربا وكرما من بك زمع الارتماء بك أقعد بك مفيدا يا من يسود سوي استبائي زوي القرين جر رسولي ماء القفول ماء الخفاء زوي زكائي لش البهائي ماء القتاء ماء الجفاء ذاك المتاع ذاك السجاع بي يراه سوى النباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك السفي ذو التباء ذاك الوسيب ذاك النسيب ذاك العجيب بعد العباء وهو نفيس فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء شمس الشماس رأس الرواسي خير الأنيس للأولياء سفى الصدور دياء دوري بدر بدور بعد الدياء قيس زكوري ليس كفاري لا في نفور مبدي خلائه جلات عادي نيران عدي فالفضل بادل القلاء جنات هادي نيران عادي فالفضل بادل القلاء ما الغدايا بادل دايا أهل البرايا بلا غلاء لا البرايا مخوما أمرا مسلما باق اللقاء فذاك يعدى وذاك يعدى لو ويردى ذا بسقاء هادي المجير نور المنير قيس البثير لسعة دائي عامل نزير داء البزير ليس النفير لسعة دائي مذك ذاك بشر لباك مرزق لكن وذي نداء منج لسالك مرجا لنازكم قادي والك انستفائي قدم فقيري جبر كثيري زيت وقير باقي وقائي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البغائي لا ثواب مع ردائي له البرر سرورا تلقى بعد الغداء لا الشيطان الرجيم أعوذ بالله بك سعين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام سرين عبد اللطيف توري tey waa daayira jaalibatul maraqib xam ne ñu ngi faree ci Dakar si université Cheikh Anta ñoo doon amoon yéen siyaare Sëriñ Hamzatu waaye nag ni ko baaxoo mooy at mu jot bu ñuy siyaare sëñ Amsatu dañuy jaar ci yenn barab yi xam ni jeexitali sëriñ bi mi ngi fa wala kenn koo xam ne daal dinañ ko tudd di tudd sëriñ bi su ko defee ñu gën cee mën a jariñu ci wàllu pas ak ci wàllu taalibe mel ni nag eh, ren ji ñu ngi ñëw ci dëkk dëkk bu tedd bi Madinatu Touré eh, ji fi dégg jëmm ju baax yoo xam ni sëñ ma ma xo jëm Maram Touré xam ni mooy noppalu fii ci suñu ginnaaw ñu bëggoon rek laaj bu njëkk bi loo ñu mën a laabiire ci cosaanu ci taarixu dëkk bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa xam naa sëñ bi ci laaj boobu nga laaj dëkk bii di Madinatu ture borom barab bii di sëriñ Mor Makhoudia Maram ture nga xam ni moo ko sanc dëkk la boo xam ne nag ci dëkki cosaani lislaam yu yàgg yi ci la bokk ndax sëriñ Makhoudia Maram mi ngi jóge ci Lappé gii Lappé Touré nga xam ni mooy kër baayam te Lappé rek boo xoolee Chérif Moustapha mi nga xam ne moo ko sañcan ak maxt Maxtar Omaana doomam boo ko xoolee ak léegi daanaka juróom-ñetti téeméeri at yi daanaka mat na sëriñ Xuja Maram jóge ci pénc mais ci sow ñëw sañc fii di Madinatu Touré naqaree waxtaane la ndax dafa bokkan ci awliya yu mag yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ñi ñuy wooye ay borom jamono maanaam aqtab euh, ci histoire ni ko indee moo fi jiitu sëriñ bi sëriñ bu mag bi soo gën a àddina am na ñuy wax ni dafa ñëw dafa nelaw ba am ñeen fukki at sëñ Tuubaa soo gën a àddina waaye moom sëñ Tuubaa moom fekkente àddina ci saaxir nii donte seenu jaxasoo euh, ci baatin lu yaatoo yaatu la ndax sëñ Tuubaa ci boppam dafa wax ni ba mu koy man ajjuma ma ne daana ñëw ci barab bi boobu sëñ wax maanaam a ngi tëdd fii lii di niroog jàkka lii nii Sëñ Tuubaa bu ñëw fi lay defee ay nawaafilam kon xam nga kii moo jiitu euh, sëriñ bi Cheikh Omar Foutiou la bokkalan jamono fi nii jën yiir yi ngay gis jën yi bi Sëñ nekkee njaareem la la laaj barab bi ndax nañ ko sëngee sënge gi mate na wala déet nañ waxeek moom xawa a xaw a xaw am sikki saaka jën yi fi ne ay nit la ko yenn njaareem ni leen nañ ñëw warale ko barab bi mooy leen kooku barabam jombante naag ak jur di fa aw ci lañ ko sëngee Cheikh Omar Fouti yu nag moom la bokkalan jamono waaye ba tey moo féete woon Cheikh Omar Fouti ak mag fi ne nii kër gee ngay seen Cheikh Omar Fouti rima téereem bu siiw boobu ci kër gi la ko binde ngan goo xam ni da koo gane si woon ngan googu it ngan la goo xam ni ndax Cheikh Fouti yu xam nga ku doy waar la woon ku amoon Bachira la euh, dañoo wax ne ci biir ngan gi bi waxtaan sëñ Maxuja Maram booba ñi waxtaan ci sëñ Tuubaa te woo sëñ Tuubaa di ko gula dina Cheikh Omar Foutiou euh, ni ko Mbàkke Bawol de am na leer gu ma fay gis booba sëñ ma xujja maanaam maqaamam xutbaan yi moo ko yor Cheikh Omar Foutiou nag wax nañ ni ginnaaw bi euh, xutbaan gi jaar na ci loxoom waaye nag ginnaaw sëñ ma xujja maram ndax sëñ ma xujja maram Touré sëñ Tuubaa dafa wax ni xutbaan yi bi mu duggee loxoom génnaatu ko ba ni mu génnee àddina ci biir waxtaan woowu euh, dañoo wax ni sëñ ma xujja dane ko leer googu ngay wax ci sama ëtt bii la may fekk waaye borom dikkagut àddina waaye nag lee mu ñëw laka xawaariq min fil xalaayiq li saabiq wala li jaa'id min wal siraabu shay'in yu'aafu amman yaxaafu ba'da iltijaa'i xayral baraaya suttal balaa waaw maam ñi sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci tawfeex gi mu def ziar beneen bi ñu am ñu amal ko nan ko daan amale ren na ku ne xam na ni euh, nan daan ziaree xawoon na am ak soppit ak soppit gu ci am euh, ak tuuti rek waaye ci biir soo soppiku googu mbokk taal bi dañ cee wane ak pësteef goo xam ni maanaam dafa dafa kawe te loolu lépp seen bëgg gu bëgg sëriñ bi la di ñaan suñu borom rek euh, ziar bi suñu borom nangu ko te kaweel ko boole ko ci ziar yi yi gën a kawe ndax gaa yi nga gis ni waa commission bi lu jiitu ñaari fan. Euh, ziar bi ñoo jiitu Touba ndugg ndugg mi tey ànduñoo ak mbooloo mi tamit euh, wut seen i moyen ñëw fii waajal xéwal yi te loolu muy doon loo xam ne daara ji leen ko defal te lu lu rëy donte si donte sëñ Touba la ñuy liggéeyal waaye tamit bu ñëpp àndandoo woon ko def mun mun du sotti kon dañuy sant bu baax a baax mbokki taalibe yi ñoom ñëpp dale ko ci góor yàlla yi ba ci soxna yi ñëpp daal jarul ñuy tudd waaye ñi fi nekk ñi ñëpp daanaka loolu mooy mooy kii kon daal ci turu commission organisation bi ñu ngi sant mbooloo mi bu baax a baax di rafet bu baax seen pësteef ak taxawaay bi nga xam ne am na ko si si si liggéey bi xanaa loolu moo nekkoon kàddu yoo xam ne bëggoon nañ ko yëkkati ci turu waa commission bi ngir gën a sant mbooloo mi gën leen a ñaax maanaam ñu gën a xam ne lépp rek liggéey Sëñ Tuubaa la te bu sootee rek yàlla nañ ci daje ngërëm te lépp dooni tawfeex daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi rabbi bi ma yasraul na xal fajar bi jaay bi وداد القلب من درار بجاه le asalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi ziar mbokk taaliba yëpp di la ziar bu baax di wax ni rek ni ziar bi ñu ngi koy def chaque année fii ñuy ziare sëñ Amsatou Mbacké daayira Jaalibatu Maraayib bu Touba université di wax ni rek wax dëgg yàlla am nañu mbégte loolu ak contentement ci li nga xam ne mooy ziar bi ndaxte soxna yi ak góor yàlla yëpp wax dëgg yàlla yëg nañ ni chaque année dañ siy gis ay jeexantal yoo xamante ni dana leen yokk seen wàllub seen wàllub diine ak seen wàllub euh, gëm si sëriñ bi kon wax dëgg yàlla ñun kontaan nañu te bëgg lool sax ndax soxna yi ziar bu jotee kenn ku nekk li nga jàppoon da koy bàyyi ngir rek si ziar bi lépp rek mu nekk tawféex sëriñ bi wax dëgg yàlla lii yëpp ay tawféex la daal kon ñu ngi siy sant bu baax di si kontaan ñuy ñaan rek. maanaam lépp li nga xamante nii def nañ ko fi euh, moo xam ci wàllu jaam yàlla moo xam ci wàllu xidma suñu borom nangul ñu ko rek ci barki Seexul Xadim dëgg yàlla kontaan nañ trop te it ñiy fasaale mbokk taal bi nga xamante ni amoon nañu yéen a ñëw te ñëw ñu ndax daanaka lépp rek benn la ndaxte nit ñi fi teew teewaal nañ leen kon ñu ngi sant mbokk taal bi yëpp di ñaan nag suñu borom dogal. chaque année ñu koy teewee te chaque année muy gën a farxe suñu njot ci barki Seexul Xaddim anjula mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw comme ni ko soxna Soda waxee rat euh, tey jii nañu ñëw ziare si sëñ Amsatu Mbàkke comme niñ koy defee at bu jot wax dëgg fa yàlla moom daanaka na ñëw sa seetlu ne at bu jot euh, ziar gi day gën a taw féexe macha allah soxna yi macha allah euh, yiw nañu mbir mi daal maanaam mën nañoo ne taw na lool macha allah kon mën nañoo ñaan daal comme ni ko waxee lépp lu fi waay def rek lépp lu fi waay ñaan muy ci xidma muy ci euh, barkeelu beeg lépp yàlla na ko suñu borom nangul rek jàmm ak salaam te ñaan at yi gën a ñëw gën a neex barke Seydina Mohamed. waaw ñu santaan mbokk taal ba yëpp di bu baax rek di wax alhamdulilah rabbil alamin jërë ngeen jëf. lakin unaadi kullal ibaadi illaa imaadi bila jalaa'i يا أهل بر يا أهل بحري هجون بر بار السغاء معي عيوبي مبدي خيابي منخي جيابي من التخائي مسدي أيا Blessed غير ربي غير مربي بالارتساء إن القديم إذ قيم والعريم سالتسائي وأنت مجيري من الغرار ومن القرور داء سقائي زرت مكاني ست ماني هبني سماني بزل بقائي سلوكي إلى المليك ما في النفوك موت لغائي أنت جميل لك ميل أنت الرجال بالأجرائي لك لداني ما جناني ولا داري كثرائي أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير سرائي أذهب توري أذهب تخيي كملت رأيك الكبرائي خير الأنعام فيك خلامي بلا ملام بل بردائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيلة أنت الوسيل لذي الغداء فيك جفاري المدينة بلا فتون ولا الخداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أصنع رجائي عذاب غمي موت ظلمي لجد بعلم داء نجائي أذهبت فقري لسلت سري من غير مكر ولا إجاء سكت نفسي فكبت عبدي أطرب تلفيظ التغطاء كنت جواتي ست عباتي أبقيت ذاتي مع الغطاء لك رجعي مع جموعي بغير جوع ولا غطاء لك التباتي يا سلسلاتي بعد صلاتي مع السماء عنك رديت بك نزيتا كما غنيت عن الألاء لك ابتدائي يا سسلامي يا ذا الفلاح يا ذا الخناء لك ابتدائي يا سسلامي يا ذا الفلاح يا ذا الخناء فيك أنادي كل البلاد لسل عبادي بان الخماء في كما ما قد جنيت فيك ابتغيت خير الماء فيك سعابي فيك إيابي بالاغتراب لك انتمائي ساسة أبي والتجنابي بلا كابي ولا ثبائي يا خير ما عما جناهي مع المساء وقت السباء النبي بيعمل بي بلا غيابي ولا زباي يا خير رايي يا خير رايي يا خير رايي للسماء صلى عليك بمن لديك وسن عليك من در مائي عليك سلم ضغبا وكرما من بك زمع لاتمائي بك أقعد بك مفيدا يا من يسود سوي استبائي زوي القرين جر سولي ما القفول ما الخفائي زوي زكائي لسلبهائي ما القتائي ما الجفائي ذاك المتاع ذاك السجاع بي يراه سوى النباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك السفي ذو الاتباع ذاك الوزيب ذاك النسيب ذاك الوجيب بعد العباء والرئيس للأنبياء شمس الشماس رأس الرواسي خير الأنيس للأولياء سفى الصدور دياء دوري بدر بدور بعد ديائي قيس زكوري ليس كفاري ما في نفور مبدي خلائي جلات عدي نيران عدي فالفضل بادل القلاء جنات هادي نيران عادي فالفضل بادل القلاء ما الغدايا بادل دايا أهل البرايا بلا غلاي لو البراغان سبابا لو جماعة ورد غاي إن رام علما أو رام خلما أو رام ظلما باق اللقاء فذاك يعدى وذاك يعدى له ويردى ذا بسقاء هادي المجير النور المنير قيس البثير لسعة دائي هام النزير داء البزير ليس النفير لسعة دائي مزق لذاك بشر لباك مزق لكن وفي ندائي منجل لسالك مرجل لنازكم يادي والك الستغائي قدم فقيري جبر كثيري زيت وقير باقي وقائي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البغائي لا ثواب مع ردائي له البرور له سرور تلقى بعد الغداء لا غنابي بعد متابي من كل عاب مع المدائي لك خوارق من في الخلائق ليس لسابق ولا لجائد من غير سراب شيء يعافه همن يخاف بعد التجاء خير البرايا ست البلايا ليس الخطايا رمت اللجاء أنت الكريم أنا القديم دور الأديم فيك سنائي رمت امتداها يعطي فلاها يكفف ابتداء ما لأنائي إني بمدعي آية تربي قد والنجوي مع البناء لكن وجست عملت مضى وما مدعت كالنبلاء قال مدادي غار فؤادي أحمد هادي للبدلاء فكيف أعوي مدى لموي والمدعو مويل العقلاء لكن أنادي كل العباد إلا إماد بلا جلاء يا أهل بر يا أهل بحري هجون بر بار السغاء ما عيوبي مبي خيابي ونخي جيابي من التخائي وسدي أيادي مردي أعادي فأعطي المراد مع رخائي ما يرذيل بعد البدائل المنازل بعد الأبائي نعم الحبيب نعم الخريب نعم اللبيب ما الخبائي عمل يا الله كاف القتال مع المجال بالعرفاء عقب السرور عبد الخيار sëriñ bi joxoon leen ndigaluñ taxawal bisub xasida ñoo ñëwoon doon ko sant si àndoon nag waa daayira mara Maraaxib waa daayira Jaalibul Maraaxib nag seen si bi daan faral di def at mu jot moo nekk nii moo waral ren ñu ñu xalaat ne ginnaaw ñoo waxoon nag yow ne Mbàkke kat dañoo bëgg liggéey bi ñu ànd koog yow ba dem ba mu yaatu ba ñuy ñëw di yendoog yow nekk ak ndongo yi di leen dem ba consultation eh, gratuite yëpp am ci day mel ni loolee sëriñ bi nangu na ko. ndax boo xoolee li nga xam ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy comprimé doon wane ba bañ ko dalee commencé ak léegi mën naa ne ci ñaari weer la toll kon commission bi bi mu daree ba daree bokk ci daayira bi ñaari weer la toll te suñu borom dogal na ënd nañ fi ay moustiquaires ënd nañ moo nangu bu loolee weesoo mooy togg nga xam ne waxoon nañ dañ koy togg ànd ko ndongo yi suñu borom dogal na lépp sotti na addi yi xam ne daan nañ ko warloog yow it andi nañ ko fi loolu lépp nag loolu lépp di addi jëpp Mbàkke li ñu jublu rek xam nañ ne asaka asaka sax asaka ji sax mënuñu ko ci liñ bëgg rek mooy liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal borom Touba te nga xam ne asaka ji sax mënu mënuñu ko ci nga dugal ñu ci biir loolu képp lañ soxla liggéey bi nga liggéey borom Touba te mu rëy xam ne asaka ji sax mënuñu ko ci nga dugal ci biir liggéey boobu kon bu dee ci jàllbu marax loolu képp lay wax soxla wuñ lenn lu nga dugal ñu ci biir liggéey boobu ndax Sëñ Touba ku mu liggéey loolu jox lay jumtuwaay kon loolu képp lañ soxla te it barab bu la waay fekk nga ñaanal ko waaye barab bii ku la fekk nga tibbal ko Mbàkke kon ñu ngi ñaan nga tibbal ñu bu baax a baax a baax a baax bu dee li jëm ci wàllu bisu xasida bi ban la fekkee Jaalibatul Maraaxib yaa ñu wax nañ am ngeen ci téeméeri ndigal te daanaa ko ànd yéen ci fànn yëpp mu mel ni téeméeri ndigal yooyee dafa nekk loo ne moo lay taay bis bépp ndax saa suñuy dox di jëm ci bis bi day mel ne bundu day gën a leer nañ waaye bis ba ku ca teew keroog suñ Seex Mbàkke teew na ci yaa ko yebal yëkkati nga soowu café jox ñu ko ngir bis ba ñu ñu segg ko waaye bis ba ku ca teew mu ñoom Baye Yirim mooy magi murit yooyu di nga di ngeen xam ne bis boobee am na ñu ne sax du nekkul première édition ndax tawféex nga xam ne taw tawféexee na ko te loolu lépp Mbàkke sa jàppandi la say ñaan mu mel bi la fekkaatee Daaru Salaam li nga wax mooy téeméeri ndigal yooyu kat yokkaat naa ko ba muy ñaari téeméer sëñ Cheikh ñëw fa teewal la fa ba pare ñu kon te ñaar téeméer ndigal yooyu man itam def naa ko def naa fi junniy ndigal kon day mel ni bis boobee moom fi mu toll nii li ñu war rek mooy nekk ci di di di di doxal waaye sëriñ bi moo yor lépp te yit nga ñaan bu ñu gis suñ bopp bisu bu yàlla bu ñu gis suñ bopp Mbàkke loolu képp la ñuy ñaan ndax rëy na ci ñun njër koy xamante nii dama koy wax ñi ma àndal lan leen bis bii de jo dañoo jomb waaw dañoo jomb lool lool lool ku fa ku fa ñëw keroog ci université ba nga xam ne ba université de université ba léegi bisu mel noonu mosu fa am te loolee Mbàkke say say say ñaan moo ko jàppandil ak sa ci liggéey bi kon ñu ngi ñaan nga tegaat ñi loxo jëm ci wàllu bisu xasida ñu ngi ñaan nga tegaat ñu loxo bu baax a baax a a baax ba bis bi buñ demee buñ demee ba ba kere ñuy yor ci bàmmeel bis ba di continuer wéy ba kere ñuy yor ci bàmmeel bis ba continuer wéy loolee mooy jubluwaay bi kon ñu ngi wàccee foofu kàddu gi Mbàkke di la sant ñaari wàllu yëpp ndax daayira ji daari daayira jàll munaaxib ku ne xam na ne ay ndaw képp lañ ay mënuñu amuñu li nga xam ne ni suñ suñ borom dogal na moom la ñuy toj suñuy loxo bu weeru dewee loolu la ñuy dajale di ci di ci jéem li ñuy jéem waaye mooy li ma wax ne sànq rek addi li ngay liggéey Sëñ Tuubaa mënuñu ci daara waaye waaye waaye waaye waaye yóbbaale ñu Mbàkke waaw ne la ko suñu taxaa waxee woon yóbbaale ñu Mbàkke loolu képp lañ soxla loolu képp lañ soxla ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax ci kaddu yi moom it mu ngi sant ndax nee na maa ko yëkkati kaddu santam ci mbokk taalibe yi waaye sëñ ñoo sant ñun ñoo ko sant te di la ñaanal lenn képp lañ bëgg mooy nga yàgg fi Mbàkke nga yàgg loolu tànd ak ndax biñ duggee ci biir sànq mu ngi wax ne liggéey bi ñu def de muy xéwal yi nee na lu ko gën a gaaw ci am wut yàlla amut ndax nee na sëñ Saliou Mbacke fo foofu la nekkoon kon nee na sant na ci bu baax a baax a baax xéwal yooyu kon nag loolu ab jàjj la war a doon ci ñun ab soññee ci buñ ko mënee buñ ko mënee duñ xaarati sax année bi jot ñu koy def waaye nañ koy def saa suñ ko mënee rek ba yëj ko Mbacke den dina ñëw def si ko ñaal ñu rek comme ni ma ko waxee sànq <laughs> dugal ñu ci liggéey bi rek booba lépp dana neex. dana neex bu yàq nee na wàll yëpp dàq ngeen ci mbégte wàll yëpp dàq ngeen ci mbégte yére yeeg xéwal yeeg lépp soxna yi mu ngi leen di beral ak cant mu leen di beral ak cant bu baax a baax Sëñ Tuubaa nangu gépp jëf.